ci bokk ñoo ngi nii nag jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy Gueye teraanga mu feggoog Baye Modou Kane Masata ak Masayendaak nee naa ko borom ciseau magique bi laa ko tuddee day dagg te du dëng di omb te du mbaq tubaarkàlla waaye balaa maa ñëw ci Baye Modou damay jàkkaarlook euh, sama doom yaay ji namu naa la torop mati namu naa la borom gaay yi borom Thiès ñu ngi lay bëggee yow suñ la fekkee fii dal la fay war a fekk ndax artiste nga comédienne nga ku baax nga ba pare nga doog a doon liggéey lii moo tax soo fi ñëwee fii yow sax da nga fee war a ñëw. Ah, waaw waaw mais Guèye ñu bëggoon a xam rek sa relation ak euh, Soumboulou Bathily. dafa yàgg dafa yàgg bi may booleeg Baye Modou mii kenn xamuma boobu maa ngi tourné gargote xam nga kon loolu yàgg na 2011 Baye Modou di ma solal jasner sama génération maa ko njëkk a sol grâce à moom mii moo tax bi ma ko gisee dama jug taxaw. tatagal ko bégal ko sumbulu nag su ma fi ñëwee dama fee war a ñëw sama xarit la mu doon ku diiñ ku respecté ay waajuram ku bëgg ay magam ak i raxam waaye ku fonk liggéeyam la moo tax bisam bi suñu ñëwee rek danoo war a ñëw waaw waay euh, tey lan ngay wax euh, ki nga xamante ni moom mooy borom këram di Abdoulaye Diop xaas yàlla boole leen ba ñu am tey tout tànk suñu sëriñ la moom suñu xarit la suñu sëriñ la te Poroxaan bërki démb la ñu pare mu tuddee ko borom maam euh, yaayu maam borom Touba loolu beneen affaire la borom Poroxaan la ko tuddee kon di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di ñaanal ko mu nàmpal ko ba fer amaat ay cheikh cheikh yooyu sut leen ñoom at yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def waaye sama xarit bi dama bëgg nga jàkkaarloo moom. ma sa taag ma sa yan daak. waa sama xarit bi ci loo nekk yow. maa ngi nii sant yàlla Baye Modou kañ nga may laal ma lijjanti sama bopp ba pare. dama gis ah. yow i faut ma laal dangaa ngaa jox ma da ngaa neex a laal. waaw waaw il ma ñëwal lu rafet incha allah rabbi. kontaan naa xew bi neex na bu ñu loo yàkkam ci. xew bi neex na ma ñëw. Euh, xew bi neex na vraiment say sama sama seex sama xarit sama sœur moo xew la ku ma ku moo Baye Modou jàpp na ci bu baax a ci carrière am dama koy wax fépp comprendre nga te ba léegi bàyyi wu ma xam nga ñu dénk ko xaas mu jàpp ko moom ci su ma gën naa ko gis bi li may wax yàgg na donc mi ci jàmm xam nga ki nga gis si jigéen bi nga bii sëy nga gëj ko dégg rek kon mi ngi ci jàmm xaas téye na ko ñu ngi leen di ñaanal yàlla sëy bu barke bi jaay Seydina Mohamed njaboot gu barkeel maam jaara dund ba ren di teral ak keneen ak keneen ak keneen kontaan naa. jaajëf waaw mais Baye ma bëggoon a xam tamit lan mooy sa secret ba réew mi ku fi baax mbaa ku fi solo rafet yaa ko dagg lan la lan la baay Modou. ah yàlla xëy na yàllaa ko def ak ak ak ak ñu bëgg ma te yàlla tax rek man nit ñi nit moom bu la ñëwee bëggal la boppam ku mel ni yow bu ñëwee ni la maa ngi nii da ngay def ci moom lu bëgg parce que nit kenn du ko lekk kenn du ko naan xam nga teraanga lañ koy doyee ak lu baax maa ngi lay xaar nag. maa ngi ñëw léegi jël numéro bi bu la dara metti maa ngi ñëw léegi euh, ñëwal ñu. waa damaa bëgg rek nga waaw kaay taxaw ni tuuti rek ma jox la laax kaay ñëwal laax laa ko bëgg a jox laax lay laaj. waa gis nga ñoo ngi nii de. maa ngi sant bu baax. alhamdulilah. Euh, Aziz mu baax mi tubaarkàlla la grand acteur. Euh, ñëpp bëgg ko di ko wër ci àddina la euh, waa Desprod ñëw nag jàkkaarloog yow tàllal la seen micro ci seen xewu nawle seen xew sœur seen xew mbokk seen xew xarit mu muy Soumboulou Bathily. waaw dañ leen di nuyu di leen ndokkale yéen tamit parce que sumbulu nee naa na ñëpp a si dugal seen loxo. parce que xam naa ne tey jii bu ngeen xamul leen ne Soumboulou ku am kóllëre la Ablaye Diop Khass ku am kóllëre la du ngay ñëw ci bësam bi ah di wax rek ne tey tubaab dafa dem pari parce que Soumboulou suñu sœur la liggéey moo ñu boole mais dañoo dem ba famille juddu si Soumboulou bu ñëwee Thiès euh, suñu nekki lay dem ànd ak suñu soxna yi donc bu xewlee tey jëkkëram tamit nekk suñu xarit yàlla def ñu am doom tudde ko soxna Jaara Buso dama naan xew mi moom du suñu xew sax ñun dañoo ñooy dalal gan ñi waaw mais fi ñu ñëw rek la ñu war a ñëw tey macha allah si bés bi. gannaaw ba ko yàlla booleeg Abdoulaye Diop xaas ah sëñ Abdoulaye Diop xaas ba yàlla may leen tuut tànk ñu duppee ko Soxna Jaara sa tey boo amoon looy wax sëñ Abdoulaye jóob lan lay doon. waaw di gën a di ko gën a nangul ab taalibeem ndax tey dañoo jóge Poroxaan si màggul Soxna Jaara Buso muy soxna soo xamante ñun murit dafa am fu ñu ko teg donc euh, tur bi moom force la waaw ndax ku jóge Poroxaan am doom jigéen. yaakaar naa ne xel yëpp day naan si soxna jaara jëm te mu dégguñu nag waaw dégg bés bi jël ko tudde ko soxna jaara kon dañuy ñaan bés bi yàlla soxna jaara wuy turandoom te am nañ ci yaakaar. jaajëf yaakaar jërëjëf merci. aja tubaarkàlla macha allah ñoo ngi nii nag jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy Ouzin Keita ah di artiste bu mag bi ci réew mi tubaarkàlla kenn dootu ko présenté Ouzin ñu ngi lay nuyu. waaw maama maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay maa fay bu baax a baax alhamdulilah. Ouzin lan mooy sa relation ak euh, kii di Soumboulou Bathily ba démb ba léegi ñu ngi lay gis ci xew bi. Eh, Soumboulou Bathily sama nit sama xay la waa xaar sama papa la kooku sama papa bopp la xaar sama papa bopp la sama xay lépp la macha allah. tey boo amoon loo koy lan lay doon. mu jàpp taw baay ndax sëy du bee fan du ñaar fan da yàlla si ma may na ko soxna jaara mais gannaaw ngéntali tamit Ouzin euh, Sénégal football na ba jël coupe d'Afrique bi ah te gisuñu la benn yoon nu mu demee noonu. dama dama nag sama rukk. Euh, da nga làq. waaw nag sama rukk nag sama loolu nag sama rukk. temps yi dafa mel da jàpp sa ñàmbu daal boole woo dara ki wax. non xam nga silence arme la. dëgg la silence la. waaw arme boobu koo koy xeexeel. ku koy xeexeel doom day Pawlish. moom kooku maamam du combat. dëgg la macha allah sa rafet. jaajëf. ëpp na xam nga sa baax na. xoolal. jëlal ma Ouzin. dama fa yaay jabi kaay ma fa yaay ma lii laay lay la laa tubaarkàlla kenn du moom ci réew mi kenn moom ci réew mi macha allah. waaw da waxaat waxagoo fii fii nga waxagul fii waxagul fii. wax naa fii léegi waxagul fii. mooy gel bi judd 2000. kii wax naa fi ba pare. surtout biisu ngoone la. ah. surtout biisu. si tam la danga cee a wax. wax naa pare. waaw da ngay waxaat wax waxaat du bari wax. ah, ah waaw wax. koy mati. waaw man mati. Jojo ñu ngi lay nuyu. yow booy. mais fay naa la ah. fay naa la yaa ngi ci jàmm. ngi sant bu baax tubaarkàlla. yow da ngaa rafet. yaa ma dàq. non non non. dégg nga kooku lu mu wax nee na yaa coofe. ci biir damaa rafet boobu yaa coofe. non dama bëri feeling man mais coofe wu ma. looloo feeling mooy lépp. ah dama am feeling nag waaw ah, waaw. léegi ma bëgg nga wax ma noo ñëwee ci ngénteli ak sa feeling tey. ngénteli suñu ngénte la ki xewle du suñu xarit de suñu sœur la. waaye Cheikhouna mi penku nii la bi penku nii la. seen sœur la ñëwal ba def mu joué penku penku bi def naa ko ni bii eh, ni penku na le <laughs> ah. le la. ki xewle suñu sœur la. yaayam yëkkati ko dénk teg ko suñuy loxo. Balla Gaye di kilifam yëkkati ko teg ko suñuy loxo. en koo xam 2012 ba léegi defe naa ne war ngaa bind ci moom livre sumb lu baax na yaatu na tabe na diiñ na am na personnalité gëm na boppam am na diine kon donc bu amee doom ju jigéen ñu wëlbati tuddee ko Soxna Jaara wàcc na ñun li suñu de waaw. tur bi màgg gi mu màgg ak ni ko Abdoulaye Diop Khass sëñ Abdoulaye Diop Khass teewee tey boo amoon loo koy wax lan lay doon. xaas lu mu nekk nekk suñu xarit nekk nekk suñu sëriñ bu téyul woon sumb lu ñu dóor ko bal parce que sëñ Saliou dañ koy dóor gaan dañ koy dóor parce que nag waaw parce que xaas ñun ñoo tax bokk nañ ci ndax Sénégal xam ko moom nag mu am kóllëre la nag ba pare suñu biir mu takk ci soxna <laughs> kon da koy téye téye bu rafet rek la mën a doon euh, nit ku baax la moom xaas nit ku am yërmande la ah nit ku yërëm jigéen la loolu moo tax ñun ñu wóolu ko bàyyi ko moom mu sëy ak sumbul buñ ko wóoluwul woon sumbul daf ñoo déggal de barke alxuraan buñ ko waxoon bu ci dugg du ci dugg mais kon gëm nañu xaas wóolu xaas xam nañ nu mel ci jigéen xam nañ nu mu nar a toppatee sumbul moo tax ñu jox ko suñu sœur mu sëy ak moom waaw. non neex na trop xam nga damaa gëj damay gëj ñëw ci xew yi mais xew bi tey ñemewu ci woon bañ a ñëw xanaa xam nga tuuti rek du ma ñëw waaye dama ne ay bu ma ñëwul. takk gi takk gi ndax takk gi mu def mu def bruit ndax takk gi damaa demoon yaraax léegi ma ne 16h ma jóg a yaraax mais naka embouteillage bi ma tardé nag ba ay 20h maa ngi ci embouteillage bi waaw moo tax ma ne tey dinaa ñëw ci xew bi waaw tey moom depuis 9h maa ngi fi ba 5h du matin maa ngi fi mais waxkat lan lañ doon wax. waaw moom amoon na bruit amoon na bruit est-ce euh, dafa mer moo tax ñëwul Soumboulou da ko trahir da ko nii wala naa. man maa ko bayee di waaw man man maa ko bayee muy benn xam nga loolu dañ ciy sant yàlla gis nga rôle yu réussir yëpp ci àdduna bi muy film yi série yëpp da ngay dégg rumeur boobu boo demee ba ci film mexicain yi film américain yi depuis Dallas Dynasty Santa Barbara ba ci kafe avec mii nga xam ne sax ñëw njëkk def série nag senegal Café avec ñoo njëkk def série Sénégal ah ba ci ñoom da nga dégg ñu ne kat euh, yi ak buub dañuy génn parce que rôle ba réussir woon loolu rek la mel ci man ak moom du dëgg mais kii c'est ma c'est ma sœur waaw sama c'est ma moitié waaw sama gën a sa xam ne doom ji bu doon góor man lañ koy tuddee yow du dëgg wala barki rasulaay dëgg la de billaahi man ngeen ko doon tuddee da ah, yow barki rasulaay man la ko doon tuddee yow Ziz bu doon góor man lañ ko doon tuddee. kon doom ji bu doon góor moom lañ koy tuddee. <laughs> kii na ah. <laughs> <laughs> ji bu doon Seexu waaw kay waaw Soleil Levant Diop lañ ko tuddee ayca borom xew baa ngi nii borom bés bi bàjjen bi yow nga ne nga ne yow wax dees yow wax moom ba fa yaay yaay waaw pourquoi ñu bëgg bëgg moom sama yaay ji Ah. masa taag masa yeen ah, taag mooy sponsor leaderu bis bi tey maa ngi lay nuyu. fay bu baax. def naa defoon naa benn kii si si DS Prod bi euh, ndax suñu sit la mais ñu ngi leen waaw waaw non fii moom sama site la moom saa yi su ma ci waree wax ak dama ci wax. donc avec fierté lay doon dañuy am contentement am mbégte wax dëgg yàlla ci bis bi tey. ndax euh, ku nga xam ne ne Soumboulou suñu cousine la suñu mbokk la suñu deret la donc euh, bu ñu ñëwee tey ci bis bi war nañ sans konte ñi nga xamante ne moom mooy yi fi àdduna yi ñu boole ñu ànd ko mu rafet ba bëgg a dee donc euh, du ñu def lu sant yàlla di ko ñaanal yàlla bisam bi mu am ci tawféex yu gën a yu gën a gën a gën a gën a gën a bari merci beaucoup. joxal ma ko. dundee xew. xew allah. xanaa kontaan rek ànd ak Cheikhou ak ñoom Cheikh Ndiaye jóge ba Thiès daal di ñëw ci xew bi ndax maag suñu ci temps yi wiiri wiiri loolu nekk lu yàgg waaw booba tey mu ngi bàyyiwu ci dara